tenir ñu di ñu xool di ñu seet fépp fu fuñ mën a nekk fa njaboot gi lépp lu ci nekk moo ciy taxaw moo ciy wax kon kii dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla yàggal ko suñu kanam yàlla tim fekk lépp. xam naa sunum xel moo baaxul waaye jaadu na nu xam fi lu bari ndax bu nu yeboo ne fii la ñu gimmee jàpp naa ne 1974 ca ca mujj wala 75 laa fi ñëw nekk fii. ci Baye seex Thioro fekk sunu mag yi Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Jooreel mi nga xam ne dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ak àggale ko yéeneem ndax ñi dëkk bi mel moo ko ni mel saahir si li fi nekk lépp ci luñ mën a tudde ne ab dëkk ngi nii boo xam ne ku fi ñëw da nga xam ne fii ki fi ne dëkk bi ñor na ko moo ko fi def dëkk bi nag dëkk la boo xam ne képp ku doon dara ci lislaam rek sa wàll ngi fi képp ku doon dara ci Serigne Touba sëb dëkk la ndax liggéeyam bu rëy bi li muy rëy rëy fii la waaje yoonam bi dem bisub tey bii mooy 10 août waaye mooy 18 safar ndax fii la boroom waaje woon dem liggéey bi liggéey dem ci liggéeyam bi ku ne dégg na Serigne Fall du ci nett li di wax ne keroog bi mu jugee jullee fajar bu nopp ci jàkka ji lanu woo maag sëñ Mourou Moustapha ñoo fii ñoo fi di ay gone booba kenn ku ne mu dë teg suñ ñaari bopp yi ñaanal ne dénk naa leen yàlla maa ngi dem nee na ñu di ko xool mu bàyyee njaboot gi ak maam Thierno Ibrahim mu yore leen am na sax mag ma dégg muy nettali mu ne euh, jamono bi leen sëñ bi wane ginnaaw nee nañ maam Thierno Ibrahim dafa sotti ay xéewal ñu naan ah Baye Thierno ngay def ba nangam de waaw ñu ne sëñ Fall ñoom loolu la ñu doon booba. nee sañ sëñ jaar nii dem dëkk bi nag ba fi sëñ bi jógee jo battalañ jabar gi maam Cerno waaye da caa boole woon ndigalul boo fi mënee toog nga yor leen boo ko nga dem foo leen mën a yore nga ne fa ak ñoom dem ba ñu dem ba dëkk bi dara desatu fi bi Cheikh Mamadou Fadil yu nekkee toogee mu xëy bis jóge Touba ñëw ba fii xamoon na dëkk bi mu ñëw mu ñëw euh, xoolaat pakk bi ba xam ni fii la mu dem yebal fi Baye Cheikh Thioro Baye Cheikh nee na keroog ba mu fi yebalee daf ko wax ne ko boo demee borom bu sagata borom bu pël ga toppal sama tànki oto yi fa mu jàdd boo demee fa ma taxawoon lu mel ne dett mbeere nga fa boo demee nga xool ko foofee la néeg sëñ bi nekkoon Baye Cheikh nee na ba ma ñëwee nee na bi mu xoolee dett mbeere bi dafa ba mu gasee buuti jën yi nga xam ne ñoo fi nekkoon néeg sëriñ tubaab yi nee na moom la ci buuti jën yi la la la dal mooy néeg néeg bi ñuy wax néegu bi ñuy siyaare ci biir nii nga xam ne fii la ñoo doon néegu sëriñ bi nee na mu daal ne ko nag boo demee na ko bàyyi te defar ko bàyyi seex nee na ma bàyyi ko defar ko ba sanc jot mu ñëw mu sanc fi ba tey jii bi nga xamante ne bi nag yàlla dogal na bàyyi seex ne fi noonu nu jóge ci daara jàngal fan ñëw ci loxoom ànd ak fekk suñu mag yi di sëñ seex jooreel mi ma wax léegi di ko ñaanal nga xam ne moo moo melal dëkk bi ni mu mel nu ànd ak Baye seex mu duñu jàngal xam-xam di ñu jàngal ak taalibe wan nu kan mooy Serigne Touba Baye Cheikh Thioro doon jëmm joo xam ne mbokkum sëriñ bi la maam Cheikh Absa ko jur bokk doom Maam Mor Anta Sali waaye mësul am ak bëgg genn gudul sëriñ Touba Baye Cheikh ab xolam dara néew ci lu muy Cheikh Mudul Fadal ndax nit bu fekkente ne juddoo nga fa nga war a juddoo mel na nga war a mel la nga war a xam la nga xam ko la nga mën a wel nga mel na lépp. jaay loola ba sa waajuru bopp sax ci boppam amatoo daanaka looy wax ci moom ndax man Baye Cheikh li ma nekka moom lépp benn nettali laa daan dégg muy nettali ci bàyyam di tudd sëñ Cheikh Absa te loola lu ko ci sëñ Fallou wax la waaye amatul amatul geneen bëggum ci daan wax. ñaari kàddu yëpp bu ko boolee benn kàddu rek lay wax te waxa matale na lépp euh, man li may dolli ci li sëñ bi waxoon rek sëñ tàkko mooy maa ngi koy siyaare bu baax. di jë siyaare sëñ Cheikh Joro ak njaboot gi sëñ Alaaji ak xale yi nga xam ne jàpp nañ ci taxawaayu bis bi. maa ngi jël siyaar boobu di ko teg ci loxol sëñ tàkku mi nga xam ni eh, sama wëllëre bu yàgg la eh, ñi ma xam toujours bu tuddee ñenn ci njabootu suñu fàll danaa tudd wëllëre woo xam ne am naa ko moom te muy wëllëre bu yàgg yàgg eh, di am mbégte bu baax ci teew ci bis bi li suñ baax itam dëgg la Mbàkke Bari lu ñu war a xamle la ba nit ñi xam ni lu bare bari taxaw na tey te bu bis bi amul woon du taxaw ndax suñ bi fi la jóge woon liggéey la suñ suñu borom bu yoon bu demul woon na war a demee kon tey duñ fi daje kon nag dëkk bi dëkk la boo xam ni li dëkk yëpp am yelloo ko dëkk bi am na ko yelloo na kon nag li ci des rek mooy comme ni nga waxee rek sëriñ bi média bi gën a taxaw ak mbokk yi ci gën a xam ne dëkk bi xam ne dëkk yi nga xam ne yoonu murit dëkk bi taarix la ci ni ñi ci di yeneen dëkk yëpp nekkee ñuy ñaan rek at mu jot rek maanaam ñi ñëw ñëwee fekk fi kilifa yi eh, ànd kook mbokk yi di fas yéene itam di ko di ko teewee at mu saa yi ñu ko yàlla man loo ah, mbégte mi rek mooy lool ndax eh, li ci des lépp suñ suñ tàkk wax na ko amatuñ leen lañu ci dal ñoo ngi sant média bi yëpp di sant bokki taalibe yi ñu fekk yëpp. tey jii di bis bi nga xam ne mooy bisu Mbacke Bari bis bi nga xam ne moom la fi Cheikh Ahmadou Khadim suñu yaakaar tey nga ko woon waajal tukkib géej bi tey ñëw fii ci kër sëñ Khadim Mbacke mu sëñ Abdou ñëw fekk ngeen organisé wu toog. di jàng xasaayit jàng alxuraan su yoon naa ñu bëggoon xam seen organisation bi dëgg-dëgg. ziar sunu sëriñ sunu kilifa Cheikh Abdoulahi Karim Mbacke Fallilu sunu boroom yàggal ko fi lool te ànd ak wér. di ziar sunu bunt ci sëriñ bi di sunu yaakaar tey ak ëllëg muy sëriñ Xaadim Mbacke moom sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall. waaw bis bi bisub tey bii day bis boo xamante ni bis bu màgg la lool ci yoonu murit ndax misaaluk bisub tey gi daanaka mooy saaxiru màggaluk Touba buñ ne 18 safar bisub tey bii di 10 août 10 août bii nag mooy bis bi nga xamante ni moom la siñ Touba jóge woon fii ci dëkk bi ñu muy Mbàkke Bari di dem ci tukkib géej gi kon loolu rek moo nu fi dajale ñuy fàttali 10 août 1895 rek la ñu fi ko si. taxawal ko nag ci ay xasida yëkkati durus ak bernde li nga xamante ni moom lañ ko sax di defe di ñaan nag mboolem ay yiw yoo xamante ni am na ci bis bi yàlla na daj ci mbooloo mi yëpp te daj ci murit yëpp te daj ci àdduna bi yëpp barkeb sëriñ bi. mu mel ne yi. mu mel ne man yëg naa ne yéen ci organisation foofu ci biir Touba. muy métti. di tàng waaye lu mu gàtt fajar daw ngeen ñëw fii ak si ci Mbacke Bari parce que yéen taxaw fas yéene waat delluwaat foofu ba pare li mu ci gën a ñor mooy nii ngeen ko defee nga xam ne respecté mesure barrière yi hmm. ni ko Serigne Mountakha joxee ndigal loolu daal waaw da di moom li ko war mooy jamono ji nekk di jëfe ndigal ndax euh, lii nga xamante ni moo fi nekk muy mbas mi ñun ñëpp sunu ñaan mooy bu bisu suba bi weesoo rek mbas mi juge fi loolu mooy sunu yéene waaye nag ñu am ci ak taxawaay démb sëriñ bi dem na fa ci watu euh, kër sëñ Fall gi nga xamante ni fa lañu samp euh, barab bi démb lañu fa nekkoon ngir taxawal barab bi ñu xëy ñëw ci Mbàkke baare gi waaye tey lu mu guddi guddi rek bu bis bi jeexee rek dañuy delluwaat Touba ngir dem wóyal taxawaay ba ñu am ca ca bisub xasida ba ngir suba incha allah rabbi mbooleem lu fa war ci ci ci ci ni ko sëriñ bi digle rek muy yëndoo durus kuréelkat yi yendoo yëkkati ñu amal fa ay berne ngir teral tamit murit yi nga xamante ne ñoo fay taxawal bis bi daanaka loolu rek mooy mooy mooy yitte ji di fas-fas bi jërë ngeen jëf. mbokk yi kooku mooy Serigne naa Gaye di jëruñ ji nga xam ne moo jiite fii daayira sëriñ Xaadim Mbàkke ba ñuy wax Touba Pakatas jaamu yàlla ak liggéey ñu di ay murit yoo xam ne boo xoolee nii seen jëwriñ toogee rek di Serigne Xaadim Mbàkke nga xam ne ñoom ay murit rek lañ mën a doon wax dëgg yàlla ci li ay jàmbaar lañu waaye ay mur sarax lañu te nag ki ko jiitu ñoom mooy mu ngi nii de Serigne Khadim Mbacke mu Serigne Abdou Karim Mbacke jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di rafetlu jataay bi di ñaan suñu borom defal ñu ci tawféex saayir ak batin di leen xamal ne la bii daal dañ cee sant lool sa ku fi ñëw ku ci nekk sa xel war naa dal sa xolit war naa sedd. ndax pakk bi kat damay wax ne sama waajur daa wax ne bëgg fee ñëw sax taxul nga ñëw fi ndax fa sëñ Touba waajal woon tukkeem bi ba mu ñëwee tànn ñu mi àndal kon ku fi ñëw ku nekk rek na nga xam ne sëñ Touba moo la wal boppam moo la tànnal boppam ndax bi mu ñëw daa waxoon ne ku nangam ak nangam ak nangam moo fa moo tax léeg-léeg kenn ñëw sax ne ma màggal gi daa mel ne waxuma ko ma ne kon màggal gi ñaa ko yëgle waaw màggal gi moom jàpp ne képp koo xam bëgg na laa dimbalee rek da nga ñëw Mbacke Bari waaye bëriwul ñu ma ko wax ndax de sëñ bi daa wax ne fii ab denc la ab denc nag bis boo xaati ni ñor na ku ci war a jariñu da nga ci jariñu loolu nag loolu nag na na ndax eh, sëñ Tuubaa fi Tuubaa la jóge woon ñëw fii nekk fi di xaar nattu bi yabal maam Cerno la ca xew lépp nga xam nañ ko maam Cerno moom demee Tuubaa bi ne ko leetar yi egsiwut sëñ sëñ bi mu dikkee tàmbali ko nett li eh, lam fa jël xamal na ko nag suñu borom xamal mu ñu fekk ma ci sama sama dëkk bu tedd bii moo tax wool cerno duggal ci biir nga wool ma fere yi euh, sa indil ma fas yi ma ma ma ma daje jeeg ñoom maam cerno daal di dugg ci biir daal di génne fas yi daal di woo fere yi keroog sëñ Fallou bi mu koy nettali ci bande bi day wax na maa fekke daal di wax ne boobu maag sama mag ju baax ji sëñ Mour Moustapha ñoo fa bokkoon nekk nga xamante ni néeg bii euh, ci kër gu mag gi la la la la ko yónni sallallahu alayhi wa sallam fekk daal ko xamal na ko sama borom xamal ne natt bi jot na nga xaati ni sëñ Tuubaa daal ko xam ne kon sangewu nga euh, xamitu mu ñax si mu ne dara mi ngi kulli seytaani wa jinni wa basar daane kon jugal nga dem sangewu nga doo dajeeg lenn loo xamante ni lu lay gàllankoor la euh, sëñ Tuubaa alaaji Baara tamit nettali na noonu bis alaaji Baara bis bi bi sëñ ku baax ki tàggatoo ak ak njaboot gi ba noppi tàllal loxoy suñu borom suñu borom dana ko loo bëgg mun na ko lépp mun na ko joxe naa la lépp nga xamante kon fii murid bu fi ñëw sa pësteef euh, sell sa yéene rafet kon lépp loo bëgg ñaan ko fi suñu borom dana la ko defal euh, kon nag képp koo xam ne wuy si nga daal na nga xam ne ñun am nañ ci xol bu sedd waaye murid yëpp buñu seen mu ñëw ndax ñun murid yëpp lañ bëgg ñu jariñu ndax xéewalu Sëñ Tuubaa gi daa yaatu lool sa ñëpp ko mën a jariñoo ci turu Cheikh Mamadou Mountakha ak ndigalam ak kàddoom nuyu kilifa yi mu fekk tàmbalee ko ci Serigne Cheikh Jorel mii nga xam ne moo jite njabootu Serigne Cheikh Coro gi wala ma njabootu Maam Cheikh Absa gi ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy sàmmaloo barab bii te ñu taxawal bis bii nuyoo bi nag dama ko ànd ak samay bokk yoo xam ne maa ngi ci sant suñu borom waaw sëñ Muntaxa saa su ma yebalee damay wax ne ku ma fekk ci jabootam gépp rek damay wax ne noo bokk délégation boobu ndax noo bokk yéene ci moom moom it jenn yéeneem la ci ñun ñëpp jabootam gépp kon doomam yi egsi muy sëñ Galas Kaltoon mii sëñ Abdul Fatah mii ak ñii ma àndaloon egg si muy sëñ Abdoulaye Bousso sëñ Mokhtar sëñ Abdoulaye Bousso mu sëñ Moutalib sëñ Abdoulaye Bousso mu bàyyi sëriñ sëñ Abdoulaye Massa ñun ñoo ñëw ci turu Cheikh Amadou Moutara ñëw ci wetu sëñ Cheikh Joore kaddu yi sëñ Lamine wax dafa rafet fees xol ba amul luñ ci dolli xanaa dañ jaar kaddu yoonu sëñ bi jaaroon la ko nuyul sëñ Cheikh sëñ Cheikh Joore santal ko ko. xamal ko ne ko barab bii barab bu mu bàyyi xel la bu mu am yéene teg tànkam la ndax xam na ne mbirum sëriñ baa ngi fi kon mu ngi sàkku sëñ seex ñu fasaaleel ko ci li ñuy yëngu ci bis bi kon loolu la ñu njëkk wax sëñ seex lanu ci dolli nag du bari mooy nun ñëpp dana ñaan rek dajeeg tawfeex sëriñ Touba gannaaw noo bokk génn bëgg bokk jenn yitte te yitte jooju sëriñ Mountakha moo ci jiitu ndopp ci ginnaawam lépp mooy liggéeyal Serigne Touba sàkk ngërëmul Serigne Touba yàlla nañu ko boole. te di Serigne la muy wax dama soññ rek wax dama kenn laa ci taalibe yi ne kenn laa ci bokk kon mu ñu amee man leen nekkal ba Serigne ba damaa war a bëggee nekkal gi te bu boobaa dama ko matal setal rafetal ko yaatal ko te loolu lañ fas yéene itam te ñun dafa nekk dañuy gëm ne bokk yi lañ fa nekkal taalibe yi lañ fa nekkal waaw taalibe yi moo si li dox na ko ñun ñëpp ay lañ. waaye nag am naa sama mbokki bopp ci biir taalibe yi kon nag bi ñu jàppale nekkalee taalibe yëpp itam nañu fas yéene nekkal son mbokki bopp te barab bi mu wàcc bi ma wàcc nii sama mbokki bopp la bokk kon ñoom rek la ñu fas yéene nekkal